parce que aussi gis nga élection yi les élections de de Bassirou Diomaye à la tête de ce pays là dafa am lu mu jàngal sénégalais dafa am yi lu ñu jël décision te man sama gis-gis la nag mën naa jóg la disparition des partis traditionnels man loolu laa gis. ok parce que gis nga PS pour mu dellusiwaat au pouvoir dafa dem dugg ci biir coalition mu tas plusieurs fois PDS am na difficulté rebondir. parce que aussi bu ñu bu ñu xeeb PDS le PDS pèse au bas mot cinq cent mille voix au mm. bas mot donc li ñuy wax parti bu taxaw la au niveau au niveau national am na et au international mais ak situation politique bi nii la refondation politique bi war a war am sénégalais yi dama jàpp ni ils ne sont pas dans les partis classiques bëgg nañ am lu bees lu ñëw c'est vrai man gëwuma la mort des idéologies jàpp naa ni PDS ak ñeneen ñi nga xam ne dañoo jóge ci parti yooyu suñu bëggee dellu siwaat au niveau du pouvoir wala dellu siwaat taxaw war nañ mën a regrouper wu tase man duma ànd ak doyen ba muy wax naan le PDS doit aller s'aligner parce que le PDS li mu xam mooy l'exercice du pouvoir PDS loolu la xam. waxul loolu de doyen loolu la. non soutenir quoi non ah ànd ak ñoom liggéey mais le PDS. exercer le pouvoir la xam. waxul sax loolu. est-ce que yaa ngi comprendre. Adama waaw tu permets. waxul loolu de Adama. waaw. doyen n'a pas waaw mais di doyen ñu tu permets Adama tu permets rek bañ. perdre le fil de l'analyse que tu es en train de faire. le PDS tu parles de cinq cent mille voix. c'est vrai moom la dernière élection yi. sans le président Abdoulaye son secrétaire général national sans son candidat le PDS à lui seul. Mm-hmm. ma xamal benn quel est le parti aujourd'hui au niveau national sur les 371 partis officiellement reconnus qui pèsent 500 000 voix il y en a pas il y en a pas nous n'avons pas donc une peine de rebondir nous sommes dans l'échiquier politique et nous comptons APR mais grand depuis mu juddoog léegi il ne s'est jamais pesé lui-même intitut personnel comme APR à l'issue d'élection Mhm. qu'elles soient municipales régionales en ce moment en, en dans les temps de même que législatives ou présidentielles si, a ah, toujours été a, toujours non a toujours été aux élections sur la de Dekkal parce que non et ah, ah, municipal la woon coalition de je te parle non seul oui seul la voilà très loolu laa wax man les Sénégalais nous écoutent loolu supposé wu ba xam lan mooy seen poids est-ce que cinq zéro virgule cinq cent ngeen wala ndax un kilo nga wala ndax un kilo cinq mosuñu posé. Hmm. seul PDS moo am loolu. il y a pas une autre partie au Sénégal bii bu wane le contraire du PDS. mais le, en 2022 donc c'est important même rek même pas parti seul en 2022 non non non non attends attends attends attends s'il te plaît mon frère. Hmm. c'est pour dire simplement. Hmm. que nous n'avons pas de la peine pour revenir nous sommes là. on n'a pas besoin de parce que nous sommes nous sommes là nous sommes premier parti sénégalais. Ah nous sommes le en termes d'électrons. y en pas un parti bu ñu égalé la preuve xool ma c'est zéro virgule trente pour cent c'est zéro virgule un pour cent nga wër Sénégal yëpp entre nous hmm. ils ont certes de de bons cadres qui dirigent ces partis la hmm. mais les les populations ne les suivent pas ils n'ont un appareil fii PDS rek moo fi am appareil tout à fait le veuille ou non c'est ça la réalité tout à fait donc loolu nañ ko nangu ay zéro virgule man dem rus dem rus franchement parlant bi conseil constitutionnel génne résultat yi day dem ko garder zéro virgule zéro virgule zéro virgule zéro ñaar ñoo ci am un un virgule un virgule ñaar fa mu ñett ñu def zéro zéro zéro quand même loolu war na war na war nañ mën a xoolaat situation bi mm-hmm. moo tax li ñu war a jëkk xool mooy seetaat physionomie parti bi seet naka lañu leen di na nag en tout cas naka la ñuy defar parti ndax dañ leen imposer bu nekk intitulé intitulé personnel da ngay dem par élection ñu def sélection ñi ñi noo war exister wala dé parce qu'il faut qu'on trouve des il faut qu'on des formules. nous ne pouvons pas quand aller à des élections avec une cinquantaine de partis. avec cent partis. alors ces ces ne pèsent même pas le poids d'une boîte de sardines excusez de l'expression. Mm-hmm. pèse wu ñu potu sardine ba pare nga leen bàyyi dañuy ñuy ay wax yu bëri. amul il faut que les gens la fassent de regroupement mm-hmm. par idéologie. par famille politique. par idéologie par famille politique. wala ñi nga xamante ni ils se rapprochent de de de leur famille. ñoo àndandoo nekk benn nekk un groupement. Mm-hmm. man je crois que il faut qu'on aille vers ça. Mm-hmm. mais bu ñu deful loolu du sotti. d'accord nous dépassons le Zaïre. avec mm-hmm. deux cent avec cinq cent et quelques partis. à un certain moment donné man man dama jàppoon sax élection présidentielle yii. mënoon na régler la question des des partis politiques. c'est vrai gars yi dañ sont partis sur la bannière des des des des coalitions. mais élection yi mënoon na ko parce que. parrainage bi dafa ñëwoon pour régler yenn question mais après les résultats on a vu que ñi ci bëri seen parrainage baaxuloon man loolu laa jàppan man loolu laa jàpp ah. man loolu laa jàpp ñi nga xam ne 10 000 voix la ñu am ñëpp. mais ce qui donc ah, ah, man excuse-moi que parti am le nombre de parrains. oui. 54 491 je crois c'était le minimum. oui nga dem élection nationale. nga am 10 000 voix <laughs> nga am tout à fait. ko ku mu étonné wul vraiment ah c'est parce que sa bopp daal da amul dara newu ci